bi nga xamante ne moom la juge d'instruction bi di def mooy la première fois bi nga xamante ne Ousmane Sonko ñëwoon na loolu ñu ngi tudd ñu ngi ko tudd première comparution loolu daf koy inculper ça veut dire que daf koy notifier ay charge ñoo na ko lii laa lay toppee ba pare placé ko sous mandat de dépôt mooy yóbbu na ko prison wala mu placé ko sous contrôle judiciaire mooy ah bàyyi naa la mais dafa am ay conditions yu nga xamante ne da nga ko war loolu moo dal ci ci Ousmane Sonko xóotal bi mooy lan da koy entendre bu njëkk ba mu entendre ko woon donc laaju ko woon ay question par rapport ak accusation yu nga xamante ne Adji Sarr teg na ko ci kaw mais cette fois ci da ngay jox possibilité jox ko occasion bu nga xamante ne moom dina mën a expliquer wu ci li nga xamante ne moom lañ ko tuumaal may fàttali ne Ousmane Sonko ba tey jii may wax ni kenn mosu ko auditionné muy enquête préliminaire muy instruction kenn mosu ko auditionné gendarmerie ba muy def enquête ba instant boobu moom député la woon bañ ko convoqué dafa bañoon te ni dafa waxoon ni moom dafa am communauté parlementaire ñu nangu woon ko ko donc tey jii c'est la première fois que muy jàkkaarloo fi nga xamante mooy juge d'instruction bi su ko mu pose ay question mu xóotal hmm. tey nag li nga xamante moom moo fay xew moom juge d'instruction bi dafay teew ànd ak ki nga xamante ne moom mooy greffier bi parce que greffier bi dafay def procès verbal li lépp li nga xamante ne daf fay xew mm-hmm. Ousmane moom ci boppam day ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay avocat am mm-hmm. euh, ki nga xamante ne mooy procureur de la république dina teew wala dina yebal benn système bi nga xamante ne dina ko teewe mm-hmm. su defee ñu poser ay questions bon waxtaan ba nag mën na gàtt ko mën na gudd ça dépendra du juge d'instruction mën na def am na audition yu nga xamante ne day def ba dix heures da koy am des donc mën na mën na gudd. Mhm. loolu yëpp nag bu amee ba pare juridiction mën na estimer que ni ah moom kat li nga xamante ne moom tontu na ko waroon na ak li nga xamante ne moom la ki ko accusé wax. Mhm. léegi nag man damaa décidé que ni man damay def confrontation. Mhm. mooy damay woo ki nga xamante ne mooy Adji Sarr mi nga xamante ne moom moo ko tuumaal woowaat ko moom mi nga xamante ne moom lañ tuumaal ñoom ñaar ñu jàkkaarloo ma posé leen seen ay questions. xool ñoom nan la ñuy réagir ak lan la ñuy répondre mhm. sur la base de cela nag man ma compiler élément yëpp après nag ma doog a xam quelle est la suite bi nga xamante ne dama koy jox mbir mi mhm. donc bi moom ñaar la mën a doon moo di moom juge d'instruction li nga xamante ne moom la ko code procédure pénale sat mooy dafa war a instruire à charge et à décharge mhm. instruire à charge et à décharge mooy lan mooy day xool ndax li ñuy tuumaal Ousmane Sonko am na ay éléments yu nga xamante ne daf koy firndeel fekkee ne am na élément yooyu ci cëppaandaw ba da koy envoyé devant une juridiction de jugement muy chambre comme comme comme viol crime la mm-hmm. bu boobaa dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu ci chambre criminelle mm-hmm. bu boobaa ñu juge ko bu boobaa la ñuy doog a wax jugement mm-hmm. mais su fekkee ne moom si boppam dem na ba lépp li nga xamante ne daf koo saytu lépp lu nga xamante am na ko ay élément amul lenn lu nga xamante ne dafay chargé Ousmane Sonko bu boobaa dafay def li ñuy woowee ordonnance de koy setal ba mu lépp lu nga xamante ne gàlloon nañ ko ci kawam dañ koy dindee donc contrôle judiciaire bi nga xamante ne teg nañ ko ci kawam sax dañ koy dañ koy dindee mhm. may may préciser rek benn benn benn mbir mhm. tey jii ñu bëri ñu ngi naan Ousmane Sonko kat bu demee soo moytul dinañ ko placer sous mandat de wala affaire genre mhm. loolu nekkul lu nga xamante ne disons lu peu probable la lu nga xamante ne fa yàlla yaakaaru nañ dina am li koy waral mooy lan mooy boo gisee chaque fois buñ ko placé contrôle judiciaire <laughs> ñu dem ba ci biir jël contrôle judiciaire boobu changé ko par mandat de dépôt <laughs> c' parce que ki nga xamante ne moom lañ nekkoon sous contrôle judiciaire respecté woon li nga xamante ne mooy charte ñu ko tëral <laughs> mooy yow dañ ne la weeru nekk na nga ñëw nga signé fii si registre defuloo ko yow dañ ne la bul tukki te demande autorisation nga tukki def la neex en ce moment là bu fekkee ne noonu juge d'instruction bi mën na révoquer li nga xamante moom moo nekkoon contrôle judiciaire bi remplacer ko par li ñuy woowe mandat mandat dépôt mhm. ce qui n'est pas le cas dans cette affaire là mhm. parce que depuis lors Ousmane Sonko mi ngi mhm. bu ñu fàttali ko Ousmane Sonko sax réew mi xam nga pour pour vaquer à ses parce que dafa respecté loolu nga xam mooy contrôle judiciaire kon quel que soit Alpha tey lu ci mën ci am Ousmane Sonko euh, duñ ko placer mandat de dépôt non man yaakaaruma ko yaakaar naa ne dina ñëw ñu auditionné ko ba pare ba mhm. pare dañ ko bàyyi mu ñibbi këram mhm. maintenant mën nañ ko convoqué waat beneen bés bu ne dinañ def mhm. bu par exemple am nañ ay éléments nga xamante ne euh, dafay plaider en faveur bi ñu koy ñu koy jugé bu boobaa ñu dem jugement bu boobaa nag le juge di décider loolu la ñuy appliqué nag bu demee ba jàpp nag kii kat liñ ko ji moom moo ko def condamné naa ko war naa ko tëj nangam à part de ce moment là peut être li koy doog a jàpp muy dem purgé bi nga xamante ne moom la ñuy moom la juge ba décidé bu boobaa comme yëpp yàggaguñu ko mhm. jërëjëf jërëjëf Daouda leer na Daouda Mine di journaliste nekkit chroniqueur judiciaire